tawa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 mbokki M Media Group nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen niiw niyu bi gën a sell di leen ziyaare di leen ndokkeel ci waxtu yu sell yi ñuy dund di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñuy jaamu yàlla te eh, jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc ñu di leen ndokkeel di leen baal xàq di ñaan ngeen baal ñu xàq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala liggéey bii mu ñu baaxe defal ñu tawfeex ñu di ci yëngatu mu dool ñu cee dimbali doole ñu cee taxawu ba ñu am ci lu koy suñu njort bi jay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw di ñaan yàlla subhaanahu wa taala rek mu doole ñu dimbali doole ñu taxaw ba defal ñu ci liggéey bi lu kawe suñu njort di ziyaare kilifa ak jotaay bi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak mbooleem borom xam-xam yi nekk ci biir liggéey bi ak euh, mbokk yi ñu ko àndal yëpp woyu taatan yi di euh, leen ziyaare ñoom ñëpp góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi rek di jéem a jubluwaat ci liggéey bi rek tey ñu am fi laaj yi nga xam ne yi ci jëkkarot mi ngi jóge ci soxna Stafay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel ci weer wi moom dafay laaj àtteep euh, tudd yàlla ak jàng alxuraanul karim ci biir wanag waaw am na laaj yuñ ci aman ci semaine bale jàll daanaka ñoo xaw a niroo rek xam naa dañ ne yukrahu zikrullahi wa qiraatul quraani fil xamaam illa tasmiyata inda al wudui fa innahu yati biha isalam lam yatayassar al wudu'u xaarij al xamaam waaw tudd yàlla daal ci biir wan moom eh, dañ koy sib dañ ko bañ su ma nee ñàkk ak jàng alxuraan rawatina jàng alxuraan moom dañ koy bañ ci biir ab duus eh, bu fekkee ni yow dangay jàpp te fi ngay jàppe mënoo am fenn foo jàppe fu ci biir duus bi la daal loolu moom may nañ la ko maanaam nga mën a jàpp waaye tamit dañ lay tere na nga dugg fa di fa tudd yàlla wala ngay jàng alxuraan foofu ci biir maanaam bu fekkee ne da ngay jàppee ci wanag daal la fa may mooy nga wax bismillahi rek soo paree nag jàpp ba noppi soo génnee baari seete yooyu nga xam ni moom ngay war a wax soo jàppee ba muy ashhadu an laa ilaha illallahu ja nga wax ko ca bitti bu fekkee ne da jàng alxuraan it nga génn ba ca bitti nga doog a jàng alxuraan waaye comme noonu mu waxee ne moom muy jàng buy jàpp day jàppe faatixa xajooju mu ne dañ ko ko digal euh, moom daal loolu moom alxuraan ji daal dañ koy tere ci biir duus bi moom duñ la may moom ngay jàpp boole koog di jàng alxuraan ci biir wanag wi foofu loolu daal moom dañ koy tere moom liñ bëgg daal mooy soo jàppee ba pare nga génn euh, looy jàng ci alxuraan nga man ko jàngal looy tudd yàlla waaye nag bismillahi moom may nañ la rek ngërëm njàpp ci foofu nga xam ne fi moom nga jàpp ci biir wanag woowu beneen laaj bi ci topp sëriñ Fallou Guèye moo ko fi yónnee moom itam ñoo ngi koy seer moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax moom dafay laaj eh, aay bi nga xam ne bi moom la yàlla wàcce ci alxuraan mu bokk ci alxuraan ji muy wax ci wàllu sàngara ak carte muy laaj daal luñ ko ci mën a defal ci tafsir ci maanaam leeral ko ci lenn ci loo xam ne lii moom la ci yàlla jublu muy aay bi may bëgg a jàng muy auzu billahi min asheytaan rajim yasaluunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ithmun kabirun wa manafiu linnaasi wa ithmuhuma akbaru min nafihima wa yasalunaka maada yunfiquuna qulil afa aay bi nga xam ne dañ ko wàcce ci seydina muhammad sallallahu alayhi doon ko ci laaj ci wàllu jëm ci sàngara ak carte maanaam jullit ñoo ko doon laaj daal euh, euh, lan mooy atteeb jëfandikoo sàngara ci maanaam naan ko ak jaay ko ak jënd ko waaye tamit atteeb euh, carte maanaam muy xob yooyu ñu yor di ko joxe di ko seddale ci seen biir fekk dañuy am xaalis bu ñuy teg ca biir eh, nga xam ne am na xob yoo xam ne ku ko am yooy gañ xaalis booba ne ne lu ak wàllu lu xeetoog loolu yépp nga xam ne dañ koy def di ca teg ab xaalis ku ca gañee jël ko ne ne nag julli ñi dañoo mës a ñëw di ko laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko léegi sàngara moomu ci ñu di ko jëfandikoo ak di ko naan maanaam ak di ko jaay ak di ko jënd ak carte nga xam ne gi dañ koy def lan mooy atte bi ne bi jullit ñi laaj loolu Seydina Muhammad yàlla dafa daal di wàcce ay bii ne ko nee leen euh, loolu ngeen di def di laaj muy wàllu sàngara ak wàllu carte googu ngeen di wax daal ne leen nee leen ay loraange yu bare bare bare moo nekk ci biir moom sàngara ak kart googu ngeen di def ak ak yàq gu bare bare gar goo xam ne gii da koy yàqal da leen koy yàqal seen diine waaye tam da leen koy yàqal seen alaxira tey day yàq seeni xel di ko jaxase di ko yàq di ko euh, tilimal te ak yàq gu bare ci nekk ci wàllu bu fekkee ni seen wàllu alal yi nga xam ne yii moom ngeen de am la ne leen nag terewut nag euh, li li muy am ay bàkkaar yu bari yépp ak li muy yàq lépp itam teerul am na nag lennet ci xam ne ay njariñ la yoo xam ne yi maanaam doomu aadama mën na ko jariñoo su ko defee njariñ yooyu nga xam ne nag moom la ci alxuraan tuddaale muy yàlla wax ko mooy weesuwut man weesuwut alal ji nga xam ne ji nit ki su ko dee jaay moom sàngara wala muy kar dina ko ci am ak euh, bànneex bi nga xam ne bii su ko dee jëfandikoo maanaam dina ko ci am ak bëgg-bëgg nga xam ne gi moom la cay am nga xam ne su koy def da cay kontaan ak yu waay yu xeet yooyu ci nekk daal nga xam ne moom mën nañ ne moom loolu luy jëriñ doomu aadama la waaye nag terewut bu dee jullit la moom euh, donte yooyu njariñ a ngi ci it dañ ko koy tere ci waa fànn gu mën a doon mooy xam jëfandikoo ga di ko naan wala nga di ko jaay wala nga di ko jënd wala ngay dem di kart ne yooyu yëpp moom donte njariñ a ngi ci itam ci wàllu googu ci wàllu am-am bi ak mu neex laag nga bëgg ko di ca gis sa bopp ci wàllu bànneex yëpp ne na du tere yow jullit bi dañ koy dañ la koy tere ndax ne ne euh, bim ne euh, am na ay njariñ waaye itam seeni bakkaar moo ëpp seeni njariñ ndax kon ndax ndax ne ne euh, bu fekkee ni danga nga koy jëfandikoo moom sàngara wala nga nekk ca kart ga da ngay dem ba dangay ngay fàtte yàlla maanaam dooto tudd yàlla ci jamono jooju te it boo dee naan sàngara ba tàggook sa sago wala nga nekk ca carte ga itam waxtu julli mën naa jot maanaam dootoo faale waxtu julli woowu nga xam ne bii moo teew te it ne ne boo ko dee jëfandikoo moom sàngara ak di carte ne ne loolu tamit mën naa jël ak noone dugal ko ci diggante nit ñi nga xam ne ñi ñoom nga nekkal ci kaw suuf maanaam ngeen nekk ay noon nekk ñoo xam ne da ngeen di bañante te la koy sabab mooy wàllu carte ko ngeen di kart ak sàngara sa xam ne moom la ñuy jëfandikoo tayit ne ne moom sàngara ak kartit ak yàq gu mag a ci nekk goo xam ne gii moo ci nekk ci bi ci ci ñoom te yàlla mu doon bëggut ku yàq bëggut ak yàq tayit euh, ne ne lii bi ko yàlla wàccee euh, daal di ci leeral li nga xam ne lii moo ci nekk ci wàllu njariñ li ca na mu ko waxee ne waaye itam daal di lim li ci nekk lépp ci ay loraange nga xam ne loraange yi ak bàkkaar bi moo gën a màgg ne lii nag kon moom lañ doon waajale daal moom la yàlla doon waajale ngir araamal leen ñoom ñaar muy euh, sàngara ak euh, carte itam leneen li toppaat ci aaya bi muy nekkoo dinañ la laaj euh, lu toll nan la ñuy war a mën a saraxe ci seen alal yooyu ak di ca dimbalee yàlla dalay wax Seydina Muhammad ne ko suñ la ko laajee nee leen nit ki alal ji nga xam ne ji moom la am maanaam na fekk ne maanaam maanaam mën na lijjanti ay yitteyam nga xam ne mënta ñàkk ci moom ay soxlaay boppam mu lijjanti ko ba mu mat waaye tamit ñi nga xam ne ñi ñoom la ko yàlla boole ci ak njaboot nga xam ne moo war a lijjanti seeni mbir na leen di lijjanti su ko defee nag su lijjantee ay soxlaam lijjante soxlaa yi njabootam googu nga xam ne gi moom la ko yàlla booleel la nga xam ne lii nag dafa des ci alal ja mu doon loo xam ne nii lu mu war a dem di ko denc la nag leen ne loola na ngeen cee génn ay saraax ak di ca dimbali ñi nga xam ne ñii ñoom ngeen war a dimbali kon daal aaya bi dafay nekk ñaari tomb yoo xam ne yii benn bi ma ngay wax ca wàllu sàngara wee ak kart euh, ga di wax euh, la ca nekk ci ay lonaange mu bari lool ba tax mu ne bakkaar bu moo ëpp njariñ ya waaye tam wax la ca doon ay njariñ ñu war ci amul dégg ni ne njariñ loolu yi tamit du teg tegtali ne maanaam day tax ñu mayëb jullit maanaam mu di ko mën a jëfandikoo dañu ko koy araamal di ko ko tere bu dee ci wàllu joxe gi lee tamit na nga xool ba say mbir yow li nga xam ne li mënu caa ñàkk lépp sotti na ak sa njaboot googu la yàlla booleel su ko defee soo desalee nag lo xam ne di mën nga caa dimbali mën nga caa saraxe looloo nga dindi ca di ca sarax ñi nga xam ne ñi ñoo ko aajowoo beneen laaj bi ci topp mu mu ngi jóge ci soxna Fatma Ndiaye ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam di ko ziyaare soxna si moom it dafay wax ci wàllu naafila nee na moom day bari wax dëgg yàlla lu muy naa naafila lool tabarkàlla macha allah yàlla na ko yàlla gën a dëgëral bi jaay Seydina Muhammad sallallahu wa sallam nee moom day def Euh, day teel a jóg lool ci guddi gi ay jamonoy quatre heures jàpp cinq heures di naafila ay naafila yu bare bare maanaam di def ay rakka ne ne léeg-léeg nam day def ñeenti raka yoo xam ne da koy naafila euh, da koy julli suñu noddee ba bay waaj a julli suba mu julli ñaari rakkay fajar doog a julli julli suba gi muy farata ji ñu ne ko ñeenti rakka yu ngay julli bala ngay julli julli ñaari rakkay fajar yi ne ne du noonu maanaam ñu ne ko daal du noonu dañ ko ko noonu desu ni doo si nuy naafila waaw loolu liñ ko ci wax moom mooy soxna si loolu nga def lu baax a baax la naafila moom maanaam amul fenn foo xam ne fii maanaam ñiy jàngale fiqh dañ ne nit ki fii la fa war ci wàllu julli ay rakka di ko naafila ñeenti rakka yooyu ngay julli bala ngay julli ñaari rakkay fajar diggante boobu maanaam bu la neexan boo jógee téeméeri rakka mën nga ko fee julli maanaam li bëgg a wax daal mooy naafila moom waxtu woo xam ne wi dagan na ngir naafila loo mën a naafila ci ay rakka su boobaa loola yow tawféex la ci yow sariya may na la ko nga mën koo naafila naafila amut fenn foo xam ne fi dañ ko fa daytal yemale ko fa ne fii la yem waaye waree su ko jéggi am na nag yu ñuy teg yoo xam ne ci yenn ti waxtu yi dañ la naan waxtu sàngam nga naafi la ca nangam waxtu sàngam nga naafi la ca nangam waaye loolu nag terewut ne yow bu la yàlla dimbalee defal la cawarte defal la tawfiix yow ngay mën a naafi la loo mën a naafi la ci ay raka loo mën a julli rek nu mën a toll loolo baax na kon naafi la googu ngay naafi la ñu naan la waree su ko defe noonu ak naafi moom ñeenti raka waroo ko naafi maanaam amaguñu lenn ci silaayal maanaam ne loolu moom lu mën a nekk la loolu daal bu la ci kenn génnee loo ci mën góor góorlu na nga ci góorgóorlu muy lu mu gën a bari rek nga di ca gën a amee tawfiix di ca gën a de am ay xéwal yoo xam ni yàlla dina la ko ca defal kon ñoo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu di jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa

فتاوى